international. C'est les international. internet ñu bàyyi xel ci sene info point net ak sene info international ñu ngi leen nuyu fas yéene defal tënk bu xibaar tey vendredi di juin xibaaru biir réew mi lay doon démb njiital jëwriñ yi di Amadou Ba ànd kook yeneen i naataango jëwriñam ñoom nag amal nañ ab conférence de presse ngir nag dikkaat ci manifestation yu métti yi nga xam ne moo amoon ci réew mi gannaaw bi ñu daanee Ousmane Sonko ñaari ati kaso ci mbir mi nekk ci diggam ak aji Sarr moom euh, premier ministre nag euh, di xam ne ñoom ñoo am mu ne sax dafa am ñoo xam ne kon dañoo daal dugg si fii ci biir Sénégal te fas yéenoon a def ay ñaawteef mu ne ñaawteef yoo xam ne nag bu amoon lii di réew mi la ñu bëggoon a faagaagal wante nag muy xam ne ne kon euh, lii di état kon euh, jotoon na yëkk seeni palang ba sax kon am taxawaay boo xam ne amoon nañ ko mu ne nag bu nekkuloon loolu li nga xam ne kon moom mooy nit ñi faatu dinañ leen compter ñu bëri euh, lool moom Amadou Ba nag muy rafetlu kon liggéey bi nga xam ne ñii di force de défense de sécurité yi amal nañ ko jamono yi nga xam ne kon yooyu la manifestation euh, mu ngi am ba léegi moom Amadou Ba dikkaat na ci li nga xam ne moom mooy tabaski bi ñuy waajal ak nag. Euh, xar yi nga xam ne kon euh, dañ ko ci soxla lool mu ne sax fi mu nekk nii am na lu toll ci cinquante mille kon muy euh, juróom fukki junne ci ay xar yoo xam ne jot naa dugg si fii ci réew mi mu ne nag euh, xar yi ñu ngi wéy di ñëw ñu ngi wéy di ñëw kon fii ci biir réew mi mu ne wante nag la xaw li xaw a yéexal kon indi boobu ñuy indi xar yi moom mooy kon manifestation yi nga xam ne amoon na fi kon tax na ba ñëw bi yéex na euh, ba léegi nag muy xamle moom Amadou Ba ne nag euh, li nga xam ne mooy nguurug Sénégal dinañu liggéey daal ba xar yi dina mat ku ne mën a am xar wante it nee lii di njëg yi dinañ def seen kem kàttan ba du cher. beneen jëwriñ bu nekkoon ci boobule conférence de presse moom mooy Ismaïla major Fall di ministre de la justice moom nag àdduna jëmale ci mbirum Ousmane Sonko moom nag xam ngeen ne biñ ko daanee ba léegi demagul euh, kaso Ismaïla major Fall di xamle ne nag euh, dar ab décision juge moom la ñuy xaar kon ba xam ana naka la ñuy doxalee mu ne nag wante ñaari mbir moom mën a am. Ousmane Sonko jébbal boppam yoon li ñuy wax mu constitué wu prisonnier wala nag lii di parquet joxe ab dogal ñu jëm jëli ko jàpp ko jébbal ko lii di justice bu ñu sukkandikoo kon ci Ismaïla euh, Madior Fall ci boobule conférence de presse la ñuy descendi ak nag ki nga xam ne moom mooy euh, ministre du commerce di Abdou Karim euh, na moom nag xamle na ne manifestation yi nga xam ne kon am na fi ak nag ay bërëbu jaaykaay yoo xam ne attaqué nañ leen lu ci mel Auchan muy fàttali nag ne kon euh, Auchan sax euh, lu bëri lu ñuy jëfandikoo fii Sénégal euh, lay bàyyeekoo mu ne nag mën na am njeexital ci marché bi maanaam yenn yi wàññeeku wala sax ay njëg yu cher kon mu ne mën na am loolu indi ay njëg yu cher li ñuy woowee inflation wante nag nee na ba fi mu nekk nii daal gisaguñu benn jafe-jafe kon boo xam ne am na ci wàll woowu. beneen ab jëwriñ bu teew ci boobule conférence de presse moom mooy Antoine Félix Abdoulaye Diome moom nag dikkaat na ci wàllum vidéo yooyu nga xam ne indi na ay euh, wax yu bëree bëri ci lii di sociaux yi moom nag nee na li nga xam ne moom mooy police daal daa collecté ay video maanaam police daal am na ay vidéo yoo xam ne jot nañ ko dajale mu ne amit ñeneen ñoo xam ne dañoo publier ay vidéo mu ne nag euh, ku nekk euh, daal da ca wax di ca wax kon lam ca xalaat wante nag nee na fi mu nekk nii am na ab enquête boo xam ne ubbi nañ ko ngir indi ay leeral ci mbirum vidéo yooyu ba léegi kii di Antoine euh, Félix Diome ñëwaat na ci euh, mbirum Ousmane Sonko ak barrière yi nga xam ne nag kon moom moo nekk ba léegi fële ci góor góor gi nga xam ne kon fa la dëkk nee na nag euh, fi mu nekk ni daal état dafa jël ay responsabilité ndax nag kii di njiital Pastef li mu ne dafa woote woon ay caravane yoo xam ne nag mu ne laaji so woon sax li nga xam ne wala boo ko yëgalu ko woon lii di état te nag daa am foroon jaar kon ba amal yooyu la caravane mu ne sax ba mu tàmbalee ñu nemmeeku ca ku sa ñàkk bakkanam ca Kolda mu ne loolu nag boo amee kon euh, day jaadu état jël ay responsabilité mu ne nag euh, fi mu nekk nii nag euh, ab maintien de sécurité la publique te nee na faaw ñu amal ko mu ne nag réew day am fu mu toll bu laajee ñu jël euh, yenn euh, dogal yi ngir sàmm kaaraange dañ koy amal loolu nag la jàpp ne kon moom moo am ci mbirum Ousmane Sonko mu ne nag euh, saa yu gisee ne nag yooyu la barrière war nañ ko mën a yëkkati dinañu ko yëkkati ñu leen di jaajëfal ci seen teewlu mbokk internet yi lii leen indiloon tey ci ay xibaar leen jox dig daje ëllëg.